va nous parler, elle, de technologie et de tout ce qui gravite euh, dans l'univers de la technologie pour pouvoir appuyer s'appuyer sur la technologie pour avoir un développement durable. Avec la complicité de Pape Omar Keïta aussi, nous aurons sur le plateau Mohamed Sarr. Il s'en est fallu de peu, comme ça on fasse Mohamed Sarr. Mais bon, calmez-vous, c'est Mohamed Sarr et Ndeye Fatou Mboup qui seront nos invités dans cette émission. Aujourd'hui, on va parler de jeunes génies créateurs, on a des choses à vous montrer, on va parler aussi de développement durable via euh, les nouvelles techniques de communication, euh, les, les TIC, comme on les, on appelle. Oui. Grégoire kii ñëw fii ci studio bi tey nee na yéen ñaara bokkoon classe on nous a donné des dossiers sur toi on va les réclamer on va parler tout de suite de l'équipe nationale du Sénégal mais bien avant mesdames messieurs permettez-nous de faire ce qu'on a l'habitude de faire dans cette émission c'est-à-dire vous rappeler ce qui s'est passé bis ak le saviez-vous on y va top c'est parti pour toutes ces personnes qui sont en ce moment en train de nous regarder sur Facebook euh, euh, de 2STV Euh, et sur YouTube aussi, vous êtes nos amis, vous êtes nos comme tous les matins. Bienvenue. lan moo mos a xew Sénégal bis ni ki tey nous sommes le 30 mars 2022, le 30 mars 1987. L'université de Dakar est baptisée du nom de Cheikh Anta Diop, savant sénégalais de renommée. Il aussi le parrain de l'Institut Euh, fondamentale d'Afrique noire, IFAN, dont il dirigeait euh, le laboratoire de datation au carbon 14 Cheikh Anta Diop et l'avenue qui passe devant l'université kon Cheikh Anta Diop la ñu tuddee IFAN Cheikh Anta job la ñu tuddee université bi ak yoon wi jaar ci buntu université bi kookoy doomi ceytu ja jàmbaar ja liggéey ci euh, luy ñoŋal suñu histoire ak suñu taarix jërëjëf bis ñi tey kon la université bu Dakar jóge ci turu université de Dakar tudd université Cheikh Anta Diop c'était en 30 mars 1987 il fallait le savoir en histoire politique au Sénégal le 30 mars 2018 au terme d'un procès qui aura duré presque deux mois et demi, Khalifa Babacar Sall, député maire de Dakar, est condamné à, un, à une peine de 5 ans de prison ferme assortie d'une amende de 5 millions de francs CFA dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar lii ci taarixu histoire u Sénégal la bokk kon bis ni tey le 30 mars 2018 ginnaaw ñaari weer ak genn wàllu yoo xam ne yéegal ca euh, tribunal ba wàccal mu nga euh, mandat de dépôt mandat de consignation kon ci la attekat yi noppi ci dossier wu xalifa Sall moomu nga xam ne mu ngi nekkoon ci wàllu caisse d'avance yi daal di koy tëj lu war a tolloog juróomi atu kaso ak juróomi millions yoo xam ne ndàmpaay la yu mu waroon a jox réewum Sénégal mujj gi am na yeneen événement yu ca topp waaye au fur et à mesure ngeen di topp émission bi dinañ dikkaat ak ci li gënoon a fës ca yooya. le 30 mars 2021 daaw bis ni ki tey daaw gii bis le général des corps d'armée Cheikh Wade est nommé chef d'état-major général de l'armée sénégalaise en remplaçant en remplaçant du général d'armée aérienne Birane Diop admis à la deuxi dans la deuxième section des cadres de l'armée kii ngeen gis kon moom mooy chef d'état-major général de l'armée sénégalaise il répond sous le nom de général Cheikh Wade Il vient de de la grande ville de Thiès Kaye. Euh, monsieur Wade, ah, là. Bon général, mes respects. Ça fait partie de l'histoire de notre pays, il fallait le savoir. Aujourd'hui, on vous a parlé de Cheikh Anta Diop en commençant cette émission. On va vous parler encore de Cheikh Anta Diop. Naka lañ koy def le saviez-vous ci njàngale yi Cheikh Anta Diop jàngale baatub nijaay mu ngi tekki kii jaay kii celui qui vend ni jaay baatu neveu di tekki ci wolof jarbaat maanaam qui vaut euh, dans le passé ci njàngalem Cheikh Anta Diop nee nañu nijaay amoon na droit jël jarbaatam joxe ko ci jamono ji ñi jàpp nit ñi jaam ngir mu dem en captivité looloo indi baatu nijaay lii du samay wax njàngaleem Cheikh Anta Diop la waaye loolu nijaay ji amoon droit def ci jarbaat bi da doon tax jarbaat bi bu nijaay ji génnee àdduna moom it da doon am plein droit wu donn ko même bu fekkee ne dafa yoroon nguur am na ñag ñu indi werante ci wax ji ndax am na ñu ne déedéet nijaay mooy tekki niyaay waaye lii mbindu Cheikh Anta Diop la xëy na interprétation yi mën na wuute waaye solo si mooy nijaay ak jarbaat jarbaat dafay donn dëgg-dëgg nijaay lii nag euh, ay mode de compréhension la ñu war a am ci suñu société bi ñu dëkkee mu di Sénégal ñu xam ne am na ay mbir yoo xam ne yu ñu préparé la yoo xam ne yu prédéfini la ba noppi ngir ñu gën a xam li ñu dëkk lan mooy suñu cosaan lan mooy suñu culture lan mooy suñu civilisation c'est révolu jàpp sa jarbaat jaay ko c'est révolu mais bon ba tey mu ngi des ci euh, cousin cousine sama doomu bàjjan sama doomu nijaay et ça c'est bien c'est quelque chose qui peut souder fan yii yëpp maa ngi gis nag ci xam naa matchu Sénégal bi moo ko muur moo tax jëlul ampleur yenn ampleur yi euh, kii ñuy wax Chérif ay euh, dara am na jenn wax joo xam ne dañ ko publier ci réseau sociaux yi muy wax ci diggante halpulaar yi ak wolof yi xaw cee wax wax ju xaw a ñaaw ci li ñu jot a dégg ci vidéo yi bokk waaye indi na ay kàddu weddi ba pare ak ay kàddu jéggale léegi nag bu fekkee ñii doon indigné wu ci loolu dañoo déggoon ne shérif li mu wax mën naa taalum réew mu dikkaat ne jéggalu na qu'on passe à autre chose parce que bu fekkee dañu des ci affaire bi rek c'est comme si on voulait attiser le feu et ça c'est pas bien pour la stabilité de ce pays wolof séeréer njaago Baïnouk, Sossé, Diola, Halpula, on est tous le Sénégal et personne ne peut nous diviser. La preuve, c'était hier. Pape Oumar, bonjour. Bonjour Pape Sidi, bonjour à tous les téléspectateurs de la 2STV. Euh, ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen souhaiter une très bonne journée di wax ne tey comme ni ngeen ko tàmmee di ko gisee chaque mercredi on va parler du génie créateur sénégalais tey on va parler de la technologie au service des ODD les objectifs objectifs de développement durable on va parler aussi d'un jeune qui s'appelle Mohamed Sarr moom li nga xam ne mooy point fort mooy bricolage yi muy def pour nga defar ko doo comprendre daal après moom dina leen expliquer nan ak nan la donc c'est ça le menu d'aujourd'hui comme mercredi Pape Sidi. bàyyil ma nuyu Ndeye Fatou maa ngi lay ziar. delloo ziar ci jàmm. maa ngi noo def ak coono. Ah, coono est-ce que amati na. waaw fi mu nekk ni kontaan naa. waaw waaw dañoo kontaan. <laughs> waaw kay costume 16 pièces et demi euh, Mohamed. ça va Pape Sidi. comment va. ça va très bien ça va tu as la forme. ça va tu des choses ah. ah oui. tu des choses que tu vas nous montrer. ah macha allah. bon les gars on va commencer d'abord par vous dire par vous demander ngeen joxe seen point de vue si match bi yéen ñaar ñëpp ku ci nekk dina ci joxe xalaatam. Mais il y avait quelqu'un qui était dans le stade. Et vous, sur les commentaires, je vois Sayer euh, Serlam, à Touman Khan, merci beaucoup à Ous Oumar euh, Souaré, à Fousseini Diallo et Bokardia qui sont tous en train de nous écrire sur les pages Facebook. Donc dites-nous ce que vous avez euh, envie de ce que comment vous avez vécu hier. Comment vous, parce que démb dañu programmé woon ne bu ñu dañu def veille de match. Mhm. ñun à la 2S on avait fait veille de match et on s'est dit OK. bu Sénégal dooree dañuy ñëw ñu defaat fii nii plateau pour sant sénégalais affaire yooyu on a voulu le faire mais on avait un problème parce que techniciens yëpp a génnoon jubile ji kenn nekkuloon ci kër gi man rek maa fi nekkoon bi ma ñëwee du coup c'était compliqué pour nous Barham euh, téléphone Diop Asseyou Pape Ouma waaw Sénégal Égypte c'était hier mm-hmm. on va au Qatar finalement ah oui dañuy dem Qatar quel que soit l'alpha on ira à Qatar mhm. loolu moom première assurance ma Marème Diop bi ma leen mën a jox fi mu ne nii mooy quel que soit alpha on ira au Qatar. Mhm. waaw loolu moom waxi président Augustin Senghor laa leen jottali fi mu ne nii. wallaahi ndax démb daal taalal naa ko sa micro mu ne li gars yi porté plainte ak yooyu noonu yëpp dinañ si ñëw sax mais daal quel que soit alpha on ira au Qatar. quel que alpha dañuy dem Qatar ay porte plainte yooyu maanaam ñi ñu porté plainte liñ ñu porté plainte man rek jarul avocat yi sax di sol robb nan ma yóbbu man. man nan ma yóbbu man en tant que kan rek ma wax leen sama ñetti dëgg ak sama ñaari vérité nan nu porté plainte ah, ah nu porté mais démb Pape Sidi mu neex mu naqari ndeketoo yow Sénégal boo koy lebal lebal ko teraanga sauf xaalis boo ko lebalee xaalis mun na la bañ a fay waa ok mais lebal ko teraanga alaaji démb la match a été Abdou Salam Diallo mu ngi ma yoral 2000 ba tey suñ koñ la dëkk ah. fay ma sama xaalis mais Sénégal démb li gañe li gën a yéeme si match démb bi mooy pour la première fois dans l'histoire du Sénégal ay supporters dem fanaani esar <laughs> non. ci n'abuses pas là. lan. dem fanaani esar. non mais Pape booy dem dañoo fanaan barki dem dañoo fanaani esar. dëgg la. fanaani esar lañ def yor seeni billet fanaani esar. maa gëm dee ndax nelaw. ba pare beneen bi tamit mooy. de à partir de huit heures. stade commencé woon na fees. <clears throat> le seul hic mooy dañ la woon ouverture de portes dañ koy def dix heures. mais malheureusement booy amul woon ticket ñoo doon jéem a tëb miir ne dañuy dugg ñoom tamit par force. waaw nañ dugg stade réew mi lañ bokk place mille places dañ ko def soixante mille places après nag mu am ay quelques tirs de lacrymogène pour disperser booy yooyu et après on a repoussé tir euh, ouverture de porte yi à onze heures mais à onze heures ay ligne kilométrique yoo xam ne dañ doon dugg stade moo mujjee am. Mhm. ñii di dox ñii jël teer bi ñii di dox ñii ñëw seen oto. jakartaay di jël gars yi di yóbbu stade bi ñu muy daw ba à midi. <laughs> waaw ba à midi stade bi commencé remplir à au au au kii yëpp. à 80 pour cent y avait que les places jaunes on a vu. place jaune kese kese kese moo duggul woon te place jaune place yi si kaw moo ëpp donc place jaune yi heure boo indee sa ticket baax na mais démb stade <laughs> kenn du ne feesu. beneen affaire bi mooy à partir de 15 heures expliqueurs yi ñëw nañ chauffeur public bi chauffeur waat public bi ak euh, Abba. félicitations les gars vous avez été formidables. chauffeur public bi chauffeur waat public bi chauffeur waat bi. et à 16h moins le quart. <laughs> Thierno nee na nga bàyyi fonde yi ngay lekk di ñëw si plateau. waaw am problème. sa gémmiñ day niin xam na waa <laughs> léegi à partir de 16h moins le quart. joueurs yi def reconnaissance pelouse du gàtt terrain. remplaçant yi dong dugg. ak El Hadj Diouf gars yi chauffeur public bi chauffeur waat public bi génn. mais 16h bi mu jotee échauffement. Edouard di génn Abdoul euh, Alioune Badara Fati bu Casa Sport ak Bingu Camara ñu dem échauffé wu public bi commencé échauffé mais li ñu mën a noté mooy saajo Mané bi mu duggee esaat. Mhm. dana public bi yéen ñëpp jug leen jug leen jug leen jug leen jug leen pendant dix secondes daw ba ba jaabal de kayita ndeysaan man jaabal de man man dama koo bëgg daal ndax waa ji euh, esprit d'équipe ak bopp bi mu yor ak mentalité bi mu yor baax na. Mhm. dem téye Sadio wax ak moom Sadio na ko garaawul muy suuf Sadio di agité di yëkkati public bi gars yi wu dem. maa la ko wax. et le pressing a payé à la troisième minute vingtième seconde. ku ñu ko rokkos ñu dëbbin la ko noonu la ñu defoon. commencement noonu la ñu defoon. troisième minute vingt secondes bii dugg. waa CAF accordé ko contre son camp ñun Sénégal nee nañ bu laa jàmmoo dugg. très gars yi jàpp ko si jàpp ko si jàpp ko si mais gars yi nag bon. ma tamit nag kuy yuuxu dix heures ba quinze heures dinga nga di nga laaf. <laughs> gars yi laaf speaker yi en plein marché ñu naan gars yi jàpp yuuxuwaat yuuxuwaat bañ dem ba série mais Pape Sidi le le leadership ak mentalité Sadio maane jar nañu def si taxaw seetlu alaaj Koulibaly daa raté Sadio Mané ne public bi jug leen. Hmm? Salah raté mu ne public bi jug yuuxu leen. Saliou Ciss raté mu dem jëliwaat Saliou Ciss comme ni mu jëlee Kalidou Koulibaly ne public bi jug leen. alaaji ñu doxal doxal doxal doxal doxal. ba Ismaïla Sarr dugal dugal. Bamba dugal. waaw ah. mais léegi kee dóor avant égyptien bi di dóor. waaw Sadio ni public bi jug leen jug leen. gars yi jug. Edouard Diab Edouard Diab. Sadio xoolal Edouard Diab kan xam lu mu def Edouard bi mu jàppee. Sadio ni joueur yëpp kaay leen wër ma ni public bi jug leen. maa la ko wax. gars yi wër ko mu teg palaat yi toj kër gi. gars yi tëb di dugg si terrain bi élément bii bi di ko téye Sadio de day def tour d'honneur fu mu tourné mais gis nga Sadio ni muy ni mu doon ni mu doon ni mu doon fóonee maillot national bi. wallaahi. au-delà de d'être un patriote mais le gars il est il est non le gars mérite tous les honneurs et les hommages de la nation sénégalaise. maa la ko wax. saajo Sadio. Sané Madio. noo xoolal. du caaxaan combat bi teg si ba kanam. alaaji ba pare même du Sadio rek de. Aliou Cissé. bu demee prolongation yëkkati na public bi. donc match tay bi match bi ñu gagné démb. c'était l'union nationale. Mhm. qui a gagné. l'union des cœurs. réew mi. non. mais Pape Sidi Sénégal. waaw plantation bi ñu plante noonu lan la. non mais balaa maa ñëw si plante bi même moo wax la benn affaire mais Pape Sidi démb esat uh-huh. au delà de l'ambiance ak bépp bi fa amoon. mais alaaji man sénégalais ñëpp xam nañ ni critique rek lay def mais premier match bi bi bi ñu dóoree déggu kenn ku critique na wax uh-huh. amul nañ leen dem. ne instant yi moom dañ koy jël rek waaw pensée positive bi gars yi amee esat mais pensée positive boobu mooy wane ne Sénégal lépp lu ñu sumb ñoom ñëpp am union des cœurs on peut déplacer plus que des montagnes. wallaahi. léegi nag ñu ñëw si plainte bi. balaa ngay ñëw ci plainte bi balaa ngay ñëw ci plainte bi ñu wax plant bi lan la ñu mën a jural maa ngi sant di gërëm bu baax sandarma yi ak policiers yi ndax sandarma yi ak policiers yi bu leen neexoon ngeen teel suñu laser yi waaye jàppale ngeen dégg